nan siiru saaruna safar ndaxte musaafara nu far jële fi mbas mi ba mu far di sant tey gërëmati ñu ngi lay nuyu jële siyaar tur sant bi euh, maa ngi lay delloo nuyoo bu baax di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp te di leen ndokkeel ci bis bi di ndokkeel Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko. et Abdoul Ahad Bousso bu Serigne Thierno bokk ci commission organisation di coordonné tamit sous commission accueil hébergement sécurisé ci résidence Khadim Rassoul bi ci jumaa ji. bokk ci commission organisation bi nga xam ne ñooy dalal gan ñi ñooy organiser cérémonie officielle ñooy ñoo leen di berndeel tamit aussi. naka ngeen ko organiser maanaam structure yi benn bu ci nekk. xam nga comité d'organisation bi Cheikh Amadou Bassir jiite am commission bu ñuy wax commission organisation. Serigne Cheikh Marème mom moko jité commission organisation nak ñom lañ dénk accueillir hébergement sécurisé ak restauration ak organisation cérémonie officielle mom lañ yor. ñoñu nak euh, mi ngi composé ci ay sous commission yu bari amna commission sécurité am sous commission accueil restauration santé ak yu demee non yooyu yëpp nag dafa am ay coordonnateur man ma bok ci ñi nga xamné ñoy coordonner coordonné hébergement ci. kilifay diine yi fiy ñëw ak euh, association islamique yi ndax xam nga sëriñ bi bi nga xamee ne woote na magal gi dafa wax ne dama bëgg a sant yàlla di sàkku it ci képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nga santale ma yàlla loolu nag tax na kilifa yi réew mi yëpp wuy si ak bitim réew bu doon ton contexte bii nga xam ne ren dañoo annulé invitation yi ak corps diplomate bi loolu nag dafa doon liggéey boo xam ne kon képp kilifay diine gu fiy dal sëriñ bi moo war a taxaw fii teeru la Cheikh Amadou Bassir tamit war naa ñëw ngir teeru la fii léegi nag ñun ñoo koy wuutu fii ngir teeru gan ñi fii dalal leen moo tax am na dispositif yoo xam ne jël nañ ko bu baax a baax ci fexe ba conditions yi ñu nekk bu munta mel ne yi nekk seen kër tamit mu xaw koo jege ngir boole leen ak ay ndaw yoo xam ne bu ñu leen accueillir danañ leen arrêter ci fiche boo xam ne mooy doon fiche de renseignement bi nga xam ne ci la seen lépp di nekk ak seen i adresse ak seen lépp dèjà lu jiitu loolu def nañ liggéey boo xam ne euh, envoyé nañ leen invitation ñoom ñëpp ba ñu confirmer ci lim bii ñëw nga xam ne dañoo limité lim mi ngir contexte bi ñoom ñëpp confirmer nañ délégation yi ñu ngi tàmbalee ñëw xam naa feek ak suba ca ngoon suñ liste dana fees daaw amoon nañ 84 euh, délégation euh, boo ko dee xool lim bi dafay jege ci ay 800 nangam personnes ay li ñi ma lay wax nag du ay niti ay niti qualité mooy ay chevrelisé waaw yoo xam ne ñëwoon nañ kon ren japp nañ ne sax lu ëpp loolu lañu sentu ndax niñ jappone ne nit ñi dañuy bañ a ñëw waaye dafa mel ne ren lañ gën a fobu sax ñoom kilifay diine yi ngir ñëw ci biir loolu nag lépp dispositif yëpp waajal nañ ko Sambur euh, bu nekk la fa war nekk lépp def nañ ko fa ngir incha allah fas yéenee xaar gan ñi ñëw ñu berndeel leen. tatagal leen ba noppi jox leen programme culturel bi nga xam ne mooy déroulé muy waxtaan yi am ci suba gi ak yi am ci ngoon gi ci guddi gi Cheikh Amadou Bassir tamit ci bisu màggal dana ñëw fii tertu len tatagal len ci turu serigne bi serigne bi dana len recevoir ci bagi gi buñ màggalee ba nopi mom Cheikh Amadou Mountakha ci bir lol dal lepp lo xam ne kefi lu aju ci gagne buñ nekké fi ci suñu loxo lay nek motax dañ len di saytu wutal len ay parking di ñuy garder seen auto kër gi ni ngay gis ni ci kanam tuuti inshallah su gude bu euh, sécurité bi ñëwé mbolem ku fi nek bala nga fay dugg da nga yor bats wala nga doon gan ku fi nek wala nga doon presse bo da nga ñëw def sa liggéey loolu moom moom yaakaar naa bu subaa bu ngeen ñëwee dangeen gis ne kër gi dana soppeeku dispositif bi dana changé bu baax a baax. li nga wax am na solo nit yoo xam ne ñëpp bokkuñ yem kenn ku nekkee say bëgg-bëgg est-ce que bëgg-bëgg yu wuute yooyu yéen a ngi ci bàyyi xel bu baax. bàyyi nañ ci xel bu a baax ndax li ma lay wax ne commission bi ñoo ci nekk ak wilaya bu dee norme organisation ak euh, wàllu mën a tatagal ay sëriñ ak ay nit ñoo xam ne dañuy wuute ci ay xeet moo xam làng la wala yu demee noonu ñaari daayira yëpp am nañ ci expérience bu dee restauration nag wilaya ñoom dañ ci am restauration euh, avancement bu kawee kawee ci xam niñ koy defee moo tax bët bi sa dafa am muni boo xam ne voilà voilà effectivement voilà mu ngoog moo tax dañuy def ay muni yu wuute tàmbalee ko ci ndékki li ci façon ndékki bu nekk tàmbalee ko ci añ bi ci palaat bu nekk ceebu jën sax dañ koy togg ci bisu màggal gi ndax am na ñoo xam ne mën naam am lekk ceebu ceebu ndawal donte dañuy jàpp ne màggal dañoo war a lekk wala dara wala waaye day am ay palaati am yu ceebu yàpp am ceebu jën am salade am fridité yoo xam ne yu yi rek la jëfandikoo accompagner ko ak yenn xeeti naan yi nga xam ne ñiy bañ suukar ak ñi ko dut bañ loolu lépp mooy valable ci naan yi ak yu demee noonu guddi gi tamit noonu lay demee am na ñoo xam ne dañu bëgg cere ju baax juñ défar ndawéen yi loolu lepp dañ koy dañ koy waajal dañuy wajal timit yenen lek yu wayof pour guddii dañuy waajal timit ku bëgg ko xam ndawalu kese kessé non lañuy ñuy timit yenen ñam yo xam eh, ay verdure la day am timit ay salati jeun man la lepp lo ne nit ki su fekkee ne mom la japp ne mom la wara jëfëndiko jëfandikoo yoyu dañ koy togg day mel mi ngi biir kërëm moy li ma la wax léegi dama la dañuy bëgg bu duggé ci sambur bi lepp lo xam mom lay am ci biir kërëm dañ koy mu nekk effet de toilette yëpp da ko fay fekk li muy soxla lépp da fay fekk noonu tamit lañ koy waajalee ñam yi muy soxla lépp am tamit ku nekk ci bunt bi koo xam ne ak fortosom rek lay déglu ngir lu mu bëgg gan gi it yor na suñu numéro ñun bu xasee dugg bañ arrêté ko lu mu soxla wala ku ñëw di ko seet tamit du caagi dañ koy bàyyi mu dem ci sàmbaram directement dafay jaar ci ñun ñu woo ko téléphone mu woo ko téléphone moom ci boppam ne ko diw moo lay seet ndax mën naa agsi wala déet su joxee ndigal ñu doog koo bàyyi mu àgg waaw loolu te ñoom ay kilifa la ñoo xam ne dañoo am ay cër fañ dëkk kon nag su ñëwee cër yooyu dañ leen ko war a delloo ndax ay nawle lañ tey it euh, dañoo ñëw wuy si sëriñ bi ngir santale ko yàlla sunu borom tabaaraka ko taala moo tax euh, dajale mbooloo mi euh, teg leen ci norme yi yi war dëgg-dëgg du yomb waaye suñ kemtalaay kattan tontu li ñoom ñoo ciy gën a placé tey su fekkee fekkoon kilifa diine ñëw nañ ba suba ca ngoon dama leen koy ñaan ngeen jéem a ñëw ma jox leen fiis bi ngeen dem ci ay quelques kilifa diine ngeen laaj leen nuñ nekk ci kër gi su ko defee danañ mën a confirmer lii may wax incha allahu rabi. loolu moom xam ne euh, euh, daal di koy gëmee noonu sax léegi-léegi faw nga nekk ba ba gis ni ni muy demee ndax koo xam ne day ñëw ci ci ci kër euh, xamu fa mën nañoo wax waaye da nekk nekkin fa nekk waaye boo xam ne day mel ne du nam fa nga xam ne fa la jóge woon. en général ñu fi jógee ñu toll dañuy woote di sant ndax fii dafa doon dëkk boo xam ne di Touba gis naa ne ni muy boolee kilifa yi diine yi ak association islamique yi ñi nga xam ne bokkuñu. sax léeg-léeg fu ñuy naanoo ci diine xam nga diine bëri nay banqaas bëri nay ngir waaye tuubaa rek moo leen di boole boole goo xam ne ñoom ñëpp dañuy mën a toog benn taabul di waxtaan. te loolu dafa am solo ci diine am solo ci réew mi te Touba di ci symboliser lu am solo jàpp naa ne dialogue islamique bi gën a am solo Touba la amee te loolu màggal rek moo ko moo ko man ndax ni ñu ñun nga xam ne. délégation yi donte 200 délégation ñoy ñew paré nañ ay sambru yu ñu leen mëna dalal am salle bu mag bu leen mëna dajalé ba paré di def ay waxtaan yo xamné dañ leen koy dello waxtaan wi ci suba gi ci programme culturel bi da ngay gis na ñom dañ leen di dello seen cër ñoom waxtaan wu ñom ñoo animer conférence rawdou rayahin bi ñom ñepp dañ leen di jox cadeau ginnaaw waxtaan wi lolu léeg-léeg ñu leen di bolé ci ay salle ñuy bokku di di jëfëndiku di essa santé ñi nga xam ne sax mën naa am gën ñoo gisante te doon ay dëkk yu sore surtout wëllëre yi nga xam ne dañoo wëllërante woon ak sëñ bi fu mel ne waa kër Amadou maa Mabey dégg nga ko ak sëriñ bi ak Assirou waa Bamba Modi sëñ Ahmadou Bamba Sall dégg nga ko waa kër Ahmed Khouraysin képp koo xam ne mas ngaa dégg ne sëriñ bi bi mu dem ci géej gi ni mu waxoon ne Assirou mahal abrari xiina asiru wasanal xida ani hunaka asiru nga xam ne képp koo xam ne amoon nga benn cër boo am ci yàlla rek ñëwoon nga ci sëriñ bi ngir soutenir ko ci dem gi dem ngir tawu drapeau l'islam ñooñu dañuy ñëw ci màggal gi te ñooñu dañoo bëgg ñu yëg seen bopp ngir seen maam yi fi ñu tegoon sëriñ bi loolu dafa doon lu am solo loo xam ne ñun tamit dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ci ci ci ci teeru gi dañ koy bàyyi xel ci tatagal gi kili këri diine yu mag yëpp moo xam jaamal la moo xam tiwaawoon moo xam njaasaan moo xam pir moo xam canaba moo xam euh, midina baay moo xam lewna moo xam laayeen ñooñu ñëpp fii la ñuy daje daje goo xam ne ñoom ñëpp am na daje bu ñu def fii boo xam ne Chamal Basir bu ñëwee at mu jot danañ tànn koo xam ne mooy wax ci seen tur te ñoom ñëpp dañuy gërëm loolool loolu nag yaakaar naa Touba rôle bi mu ciy joué ah am nay kilifa diine yi sax ñu ngi ciy tàmbalee roy rôle la boo xam ne wax dëgg ñoom ñëpp dañ ko saluer te lu am solo la boole ci xam nga Rawdu Rayaahiin chaque année da leen di jox kado kado xam-xam mu at mu jot danañ waajal téere boo xam ne njàngaleem sëriñ bi dana ci tënku ak njàngaleem lislaam moo xam ne ci ñun lay jaar ñu jox leen ko kado bu ñu dem te loolu lu am solo loo xam ne tax na sëriñ bi am na ñoo xam ne dañ ko umpale mais sëriñ Tuubaa ku ko xam da nga ko bëgg ndax képp ku bëgg lu baax boo xamee kan mooy sëriñ Tuubaa da nga ko bëgg. te loolu wax dëgg yàlla biñ tàmbalee organiser magal gi ci forme bi depuis 2010 gis nga ne am na jéego bu kawee kawee boo xam ne Touba mi ngi koy joué ci Sénégal di ko joué ci Afrique rawatina ci bitim réew ndax bu doon doon contexte bi tey délégation étranger yi kenn du xam nu mu toll. gis nga colloque bi ñu doon def barki démb ci vision conférence daaw li fi ñëw ci délégation ci réew bu nekk continent boo xam rek ci Afrique ñëw nañ fi. ni ki noonu naari gànnaar yi ren nag tax na ñu euh, éliminer loolu ngir contexte bi waaye teewul nag liñ jàpp ne moo nar a ñëw ci ay délégation tarixa moom ren jàpp nañ ne moo ëpp. dafa mel ne ñoom sax dañu gën a sawar ci bi ñuy wax naan ay mbas ak yu demee noonu ngir bëgg giñ bëgg sëriñ bi ak bàyyi giñ bàyyi xel Touba tax na ñu ne ñoom lu mën a xew. dañuy ñëw ngir ànd ak sëriñ bi bis bi santale ko yàlla loolu ñu ngi ko amee ci bi leen di yónnee invitation yi ci réaction yi ñuy wax bi ñuy téléphoné loolu ci lañ amee yëg-yëg ne nekk ñii kat ñu nawloo sëriñ bi lañ ñu bëgg sëriñ bi lañ ñu bëgg Touba moo tax. Euh, bëgg-bëgg màgg gi yemul nekk da ngeen xam ne loolu loolu loolu loolu ñun ñu nekk ci terrain bi niñ koy xamee ak ñoom ni ñu namee màggal ak niñ koy yàkkamtee noo euh, yéeme na maanaam maggal dafa doon loo xam ne Touba moomu ko murid rek moomuñ ko waa ndax fête nationale la bu Sénégal boo xam ne ñëpp ci yëg seen bopp ku ñëwul tamit dañ nga ci yëg sa bopp économiquement loolu suñ tubaab moo suñu borom moo ko defal ndax li ko ja suñu borom jaral moo waral mu defal ko loolu nag waaye nag ñi bëgg lu baax di di ay di ay kilifay diine. باين خل لولو بباخ باخ الشيخ أحمد النيف ما تدعولها هذه العلاقة كلها مولاها الشيخ سيد بابا مقوى لولت من ولا بولنا تيمبولم كيف يدين يبري وحدة يلا فوف لين جاب سرين بي خيول لغو خبنة خيول لغو يلا لغو باخ الإسلام غم باخ السنغال غم باخ أفريق غم باخ أدنبي تخنيني وديكو أندم يوم كون يلا يلا إندي تجامو دلولين تجامو inshallah allah bu suba ma ngi len di ñaan ngeen def reportage ngeen ñew ma jox len yenn kilifa yi dina ngeen dem laaj len nu ngeen gisee eh, eh, dalal gi ak yu demé non dana mën bëna confirmer li may wax man man nga xana en tant que ma len di dalal lolu dana dana dana am solo ma ngi len koy ñaan. kon ñi ngi len di sant bu baax di len gërëm ci liggéey bu rafet bi eh, di ñaan suñu borom mu defal ñu jamm ak xéewal Abdou alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh